Ama ngi noonu mbokk internet si Siweulko TV comme ni ngeen ko gisee noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu ñëw na mu ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ak sérénité Ama Baldé ak sérénité dégg nga booy. état bi bu ah état bi bu ah ma yor. waaw kon kon tur Modou Lo moom lay indi day lekk Modou Lo. day lekk Modou Lo waaw waaw. kon daal parti su ma dégg mooy saxal daal la. bon non ah, man daal di leen duma gëri ba roo. déggoo ma la ku ma dóor damay aal ku ma dóor boo dawul. Hmm. ah damay aal yet bi ma fayu. ma fayu waaw. ah waaw. mais kii Modou Lo li nga digal Ama ma xeexam. bëre dóor la ñu wax. bëre dóor la ñu wax mais xeex saa bu ñu waxee ñëpp. Eh, bëre dóor la ñu wax. bu ñu weddante ay coup affaire ñu xam ne lépp dëgg la. Mhm. waaw bu benn télé benn bu benn bu télé. Mhm. bu coup Gris Bordeaux télé am. coup coup Amathane Gris Bordeaux. bis woowu ñu affaire ñu xam ne lépp dëgg la. waaw. Uh-huh. waaw. mais xeex bi gars jël faveur bi jox ko Gris. waaye bàyyi ma la 30. day daw rek. waaw. day daw rek. day daw rek. boole mboole rek. mais c'est pël fu ru boo pël pël bu soor bu ko fekkee boo kóob. Hmm. dana talla rek. soo bu demee kon ruy lay ru ruy bu ko kuy dalee si ah. bu demee ru ndox lay reere wala wala. wala mais mais mais Pathé giri bi ñu daanoon ak giri na ah, ay giri nag jeeg la nag. ah moo kii jeeg ne ma noonu. ñu ñëw rek xam dañoo rek tëdd rek. ñëw rek tëdd. bëggee jàmm dañoo rek tëdd. ah waaw bu ñëwul tëdd luy xew. ah luy xew après si moom lay méttee. waaw. ayca maa la gën a kontaan naar sama doomu ndey. Ah, waaw Seydina Aliou. waaw borom jaasi bi. waaw mi ngi ah, jaasi nag Seydina Aliou. waaw moom jaasi de. non non wala moom jaasi de. <laughs> bala moom waaw Aïcha mi a kontaan Seydina ok naar. nga noonu. comme ni nga ko gisee noonu mbokk internet si Woulko TV ñu ngi nii toog taxaw ak ak ak Balde euh, Ama Balde di di di magam di di mu ngi noonu gis nga ko dafa am ay fans fans yi ñoo bëri si booy saag bi dara nekku si. waaw gars yi naar la xam nañ sama doomu nay nga. waaw bilaay mu ngi noonu. waaw waaw xam nga semence day bàyyi ba naar di mu ñëw. noonu la demee nag. ayca ma nga noonu. mu ngi noonu ayca mbokk internet Siweulko TV pate la woon mu ngoog Pikine. maa ngi seet yow. yaa am jàmm. kii mooy moom moom Pikine la dëkk boo xam ne dégg nga ko. lu Pikine soxla mu ngi ci. tey nag yéen waa Pikine yéen soxla. waaw war a ngeen ko seen doom Ama Baldé war dem moom préparé nañ ko si bépp côté waaw di ñaan yàlla may ñu ndam rek Ama Baldé moom préparé na ko si bépp côté di ñaan fair play gars yi génn def mobilisation di dee bépp Pikine waa benn mayo képp dëkk Pikine bi si côté Ama Baldé boo gën daal xam ne Pikine moo xew ndax derby bi yàgg Ama Baldé am si lu mu jóge am war a ñëw pour rek di ñaan yàlla may ñu si ndam bu rëy nag incha allah rabi te am nañ si yaakaar bu rëy ndax sëll bi ñu gis nii biñ leex bu taxawee gën gi deux minutes ñu xam ne ñu ay yoratuñu mbër dañ koy dóor dañ koy daal loolu par force la. waaw mais tamit dafa am loo wax léegi nag ci biir wax. Hmm. dafa am fu ngeen jugee. waaw am fu ngeen war a dem. waaw te fu ngeen war a dem nga xam ne ngeen fay fekk. non loolu ragaluñu loolu. dañuy mboole rek daw rek amul arrêt ah bu naree ragal ñu ray ko. ah barki Serigne Saliou. par force la loolu. léegi nag lu ngay dénk sa mbër yow. ah Bale. waaw kenn du ko conseillé. Ah. ñëw lijjanti lu muy lijjanti am na ñu amee la ñu koy jox par force ama na am na ñu amee lii dañu koy jox par force lay war a jëli ñi ñoo teg ko suñu loxo waat ñu xool leneen lu ñu war a jëli waat loolu rek la. mu ne nag lan ngay dégg gars yi. waaw gars yi li may wax mooy ñu faire pare ñu fair play te xam ne ni làmb rek la day jeex di wax ni làmb fi amee violence bi après ñun ci waa Pikine ñoo si sonn quoi parce que lépp si biir Pikine lay këppwaat ndax arène bi biir Pikine la nekk da pare dafa am ay mag yu nekk biir Pikine bu ñu dóoree na Rose dañuy tëdd ba guddi duñ nelaw Lac Rose boo ko dóoree stade ba fii ko ñu Ama Baldé gaañ koy jëg dafa saf am nag ñoo xam ne wéréñ ñu ñaan yàlla am na ku ne ñu dimbali ñu ñu xool ñuy sens ñu ñuy jàppalee gars ak ku nekk yoon boo mën a jaar pour coow ba na mën a am pour waaye bañ gars bañ féedoo la kor major te booy demee ñu xam ne li làmb kese la quoi buñ demee ku nekk ànd duggandoo stade ku ne supporté sa mbër emballé daal ku ne ñibbi quoi ñu ñëpp benn lañ quoi

waaw kon li ngeen waajalee booy yi. waaw jarul wax yéen xam ngeen nu mu demee. ñëpp ah, ah. xam nañ nu mu demee. léegi lay dégg amateur a mbokk supporter yi kon. waaw nañ ñëw ci jekk ak teranga rek. Hmm. defar ba mu naaj. waaw baax na xam nga si Omar borom géej waay. la. waaye am jàmm. waaw a si koñ bi di toog di yendu. nekk ak mbër mi leen laaj nan ngeen di préparé seen combat. ah combat bi ngeen préparé comme yeneen rek. ama jàpp daan ñibbi la xam. kase waaw mais mbër bi ngeen di bëreel yokk ko jàpp de xeexkat la de waaw déglu naa xanaa lu mën a xeex mën a xeex tamit laa la bu ñu ko tegalee écran si lawu ndaw bi jëm si kawam du am dara giri du am dara giri benn jooy la kon la yàlla xaaju jooy la xaaju jooy xaaju jooy xaaju jooy on gaari naan benn jooy mais giri xaaju jooy la wóor na yàlla waaw dana léegi kon yéen lan ngay dégg mbokk amateur yi supporter yi lu leen dégg dañ préparé wu rek ku nekk solu naaj ñëw essage toog xool ba xam ak sëñ Bamba ama daan nit ñu ñu bi war na sëñ Touba Mbacké loolu kese lañ si am ah, ama daan nit ñu bi ñun ba tey nii saa yi fere victoire ndax man ama daan na ba pare ama na ba pare ah, daan na ba pare jeex na ba pare wóor na yàlla waaw ah, kon baax na léegi bientôt ba dimanche ba dimanche incha allah rabbi léegi jaam waaw am jàmm waaw ñu lancé seen combat nga xam ne dañuy préparé seen combat. combat bi combat bi ñu koy pare bu baax a baax a baax waaw ñu koy pare bu baax xanaa gis nga ñu xaar mu jot rek ñu jàpp biir bër bër daan ko incha allah bu neexee waaw. mais yéen ñëpp da ngeen ne dañuy jàpp biir bër bër daan ko mel ne biir bër boo entraîné wu am ay mbokk te giri dafa am ay mbokk ànd ak ay mbokkam te muy xeexkat. biir bër xeex la am si lamb yi. laa walaay fekk la am si làmb amul leneen si làmb wër a yàlla bu ñu ko jaafee mu jël loolu rek la am si làmb ji Gris Bordeaux jaakaar parfum la waaw mais xeex boobu noonu nga wax te est-ce que bu ko indilee seen mbër seen mbër dina dégg ko xeex boobu en bale dafa a xeex en bale xanaa gisoon def Malick Niang daa ba Malick daanu en bale xeexkat la gars ñoo comprendre rek dañoo foog ne Ama Baldé bëre kese la mun maanaam Ama Baldé rek xeex. est avantage am mooy xeex bi. est-ce que du ah. warul jàpp Gris Bordeaux daan ko. xeex bi moom ah xeex bi moom ut buntu rek ut buntu làmb moom day métti rek wante ah si bëre lay mujjee moom incha allah moom si bëre lay mujjee moom. Ama Baldé jóge si defet moom ak Modou Lo mu war a mu flambeau bi muy Pikine sori mm-hmm. ginnaaw euh, si Boy Niang ñeneen ak ñeneen yow loo koy conseillé si combat bii nii Ama Baldé combat bi moom ah, lu ma koy conseillé moom na def hmm na def nànk bu baakha baax xamne ne bu muy beurel mom deug la mom Gris Bordeaux champion la mbër la waaw na jël temps xol lu muy def bu baakha baax jar muy yàqam di combat bi ndax combat bi ni ni dañu jaral suñu bakkal lañ ci tek ah. man mii di wax ak yow ma ngi jógee ba ben barak en balla kessa la top top ma kenen ba ci Seydina Mouhamed nga xamne ne Gris ancien la yow waxal nga ko sa biir wax moy mhm. bëre koo xam ne mooy sël bu ndaw bi mhm. combat bi am fu muy yobbu fu sori muy Gris euh, Ama balde mhm moy wor def faux pas parce que dafa dafa am moloro Lo roi des arènes ñu mu bëre mom perdre ko instant ni ñu nan Boy Niang ñëpp mu ngi ci jog ci ginnaawam yow lo ci wax aussi ci e Boy Niang aussi. Boy Niang Boy Niang moom champion la moom waaw Boy Niang ak Ama balé ben lañ Pikine Pikine ñëpp ben lañ Pikine ñëpp fami lañ. billahi Boy Niang tamit ñong koy ñaanal tamit combat mo gëreul tamit yalla nako yalla may ndam waaw képp koy mbeuru pigen yalla na la yalla may ndam. waaw ñoo lay ñaanal loolu noonu. jaajëf 100 pour 100. merci